lan lay rap rappi ci mbir mi Mamour Cissé ci yéen kaay gi di réew mi quotidien daal di wax ne ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko dañoo gaaw ci saaga la ñoom daal soo waxee loo xam ne arrangé wul Ousmane Sonko wala nga wax sa xalaat maanaam dañu lay saaga ba tey moom Mamour Cissé ci yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi bu ci kilifa diine yi waxutoon lu toll si junni jàpp ñaari junni cay nit mën na ñàkk seen bakkan te la lépp gars yi ngir nag juum la nguurug Sénégal gi de la turbine nee na njiitu réew mi di Macky Sall neexul ba neexul waaye nag ay mbiram jamono ji tax taq na suuf la na loola ndax ay jàppante yu métte métti moo am ci benn bokk yaakaar violence goo xam ne fu ko waaye nat daan na koy passé moom la ñu nemmeeku ci week bi fi nga xam ne mooy Pikine hôtel ville de Pikine la nga xam ne moom la ñu fa gis maanaam jéggi na dayoo doy na waar loola ab ñoo boo xam ne cadre APR yi ak militant APR ñoo ko doon dajee waaye nag mbir ma mujjul yegg ba ñu commencé daal coolu ji pa saagante ya xasante ya siège di naaw bomb à ya yi di jolli mbir ma daal di tar loola niki démb réunion ba kenn xamul ci lan la mujj am na ñeent ñoo xam ne mujj nañu sa am ay gaañu-gaañu yu métte métte ba ñu yóbbu leen ci l'hôpital yéene kaay gi de la nee na en tout mooy violence bi nga xam ne ni ki démb gis nañ ko ci hôtel de ville bu Pikine jéggi na dayoo yéene kaay gi de Direct News nee na njiitu mi di président Macky Fuuta nee nañu ko déet Dakar nee nañ ko déet Pikine nee nañ ko déet ndax nag ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Matam Fuuta démb dañoo wàccoon ci mbedd mi nee nañu Fuuta dafa fatigué Fuuta dañu koo sacrifié maanaam yéene kaay gi nee na en tout cas ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk Fuuta ak li ko rawatina Matam kontaanu ñu benn yoon ci nga xam ne mooy Macky Sall ndax ñoom nee nañu daal seen responsable politique yi dañu leen seetaan ñoom bala ñoo ñëw ca Fuuta dañoo bàyyi rek ba élection ñëw wala seen soxla yëkkati leen démb nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ca Matam doon fa organiser ab meeting boo xamante ni ay millions yu bare bare bare bare lañ si dugal loole nag bokk na si li naqari ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ndakaaru dañoo déggoon ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba dañoo a amal ab réunion ndaw ñoo ko mujjee gàntal ndax ànduñu ci ca diwaanu Pikine foofee nag violence bu mat sëkk lañu fa nemmeeko gi nee li nga xam ne moo jaaxal gars yi ba ñu déggee ñu ne Macky Sall dafa bëgg a def ab remaniement la ñu gis ñi nga xamante ni ñoo bokk ci APR maanaam di rapp rap yi kenn ku nekk di jóg di wax waaw dañuy dajale am mbooloo yenn yu kenn xamal yéen a kaay gi di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñooy kujje gi jamono ci ñoo ngi joxonte loxo seen biir ngir nag mën a jàmmarloo ak Macky Sall Moussa Tine ci yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Macky Sall ak ñi mu àndale jamono ji maanaam ñoo ngi waajal seen bopp ñoo ngi préparé woo yéen a kaay gi Abdoulaye Sow bu ñoom ku leen dóor ñu fa yoo yéen l'Observateur ñu xëy fekk fa Jean Christophe mi nga xam ne ay jamono nekkoon na ambassadeur bu France ci réewum Sénégal nee na nag bras de fer bi nga xam ne moo dox diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mbir mi jeexagul waaye nag Ousmane Sonko képp koo xam ne bëgg nga ko sànq maanaam di nga am ay jafe-jafe lool lool loola yéen a kaay gi de la Soleil xëy na ci professeur Amadou Mahtar Mbow mi nga xam ne yëkkati na ay kàddu wax ak ndaw ñi ngir nag ñu gën a dëggu fonk seen réew yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy sampablaca nee na kan mooy professeur Amadou Mahtar Mbow nga xam ne ay jamono moo jiite woon UNESCO ab laaj la tontu bi ma ngi ci réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimam wax ci Amadou Makhtar Mbow ak liggéey bi nga xam ne liggéeyoon na ko ci lu jëm ci conclusion commission nationale de réforme des institutions yéen a kaay gi di Dakar Times nee na lu fa état de catastrophe bi loole nag am na ñu bëri ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi gundaandaat rawatina ñi nga xam ne seen wàllum koom seen wàllum économie guddi la doon dox rawatina ñi nga xam ne ñooy jëm ci wàllum baal ak wàllum fecc ak yu ni mel yéen a kaay gi di Le Quotidien nee na Gambie jamono ji tension am na fa diggante yi ak ñenn cay Gambien ginnaaw ba nga xam ne ab sénégalais rey na fa ab gambien ba léegi ni am na ay sénégalais yoo xam ne mayu ñu leen jàmm moo tax lu toll si ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ci sénégalais yoo xam ne maanaam ñoo ngi leen làq yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu koy fekk fa Souleymane Téliko mi jiite magistrat yu Sénégal génn na ab livre ci magistrature bu Sénégal wax na ci nan la ñu war a yokkee li nga xam ne maanaam mooy indépendance de la justice nee na justice mënta am ne bëri na lool ci réew mi ñi nga xam lool bu ñu sukkandikoo ci docteur El Hadji Thierno Mbengue mi nga xam ne mooy chef de division de la santé mère enfant daan wax ne ci atum bi lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan ci mbir mi yéen kaay gi délibération xëy na ci rapport audit bi nga xam ne def nañu ko ci chambre de commerce bu Ndakaaru waaye nag détournement ya nga xam ne moom la ñu fa nemmeeku fukk waaye natt